je pense que il est tout à fait normal bu fekkee ne doomu yaraax dafa am combat bu mag di am liguey bo xamante ne ba léegi ñi ngi ci et que lu melni bo amé amee ñu ñëw teew d'autant plus que yalla dafa dogul bu dul sama casquette maire buma ma nekkul woon maire aussi Ni la fi ñëwé ñëw taxaw pour euh, ni mak wara taxaw rakam Moussa suma rakala Moussa suma mbokk donc mu nek di wut combat bo xamantene dama ko ci ñaanal yalla yalla may ko ndam suñu téway fi muy man ak sama collègue conseil municipal u Hann yëpp dañoo ñëw vraiment pour encourager vraiment euh, Moussa pour que li mu def yalla may ko ci ndam. amna solo léegi ñuy xol tay mbolo bi ñëw na tey mbooloo bi gis nañ fi mbolo bi yep ñew nañ tay noko gisé tay tey dundé tay événement bi ni tay carrément. waaw xam nga yu melni da fay wane rek nit ki dayoowam fa mu tollu Moussa est un grand champion te ku xool Moussa Ndoye ci na muy liggéeyee sérieux bu muy andal. nga xool dernier temps yi ni mu mel yëpp looloo waral mobilisation bi te dafay mobilisation boo xamante ne dafa baax véritablement pour que euh, mbër bi gën a xam yan responsabilité da yanu nit léeg dana dem mais nañ ko war a yebee ko donc conceptu open press bi

Thank you. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sante yàlla julli si yonent bi di ñaanal suma waajur yàlla na yàlla jox ko ay leeram ak suma mag mudumaam di ñaanal Siri Ndiaye suma xarit yàlla na jox ko ay leeram ak Bamar Tambédou ak képp xale ba nga xam ne demoon nga si tey si wàllu Maroc bi ba yàlla moom la si maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla guddal yàlla na yàlla yokk seen leer taf seeni seen barke di ñaanal suma sëriñ muy sëriñ sëriñ Babacar si yal na yàlla yokk ay leeram di ñaanal Baye ablay Dieng yal na yàlla yokk ay leeram di wax nak ma ngi ñaanal suma rek suma xarit muy Ndey Cissé yal na ko yàlla te xere ko aljanoom tamit wañe ko barki dem rek di wat waye rax yep yep yep yep yep surtout di tal nuyu bi tek ci loxo monsieur le maire muy babakar Mbeng ak sen conseiller muy Matar jaw ñom tam si ñom ñom ma leen nuyu di nuyu suma papa yi togon fi ñom papa Alpha ñom Baye magge Gueye Baye Pape Ibi bay pap Diop ñom ñep ak bay pap Sini gay bay mo nyop yarax yarax ñep la wax dalifor Maris 1 Maris 2 Marinas lu ko dalee yaraax kip ñep bayuma ken ken ken di wo ñi nga xam tamit moy wa basul basar ñom ñep ma la ni nuyu di nuyu wa keur mbay fab lu bax di nuyu wa Lompul wa Mbora di nuyu ñëpp ken wa waa Toubacouta ñëpp maa leen nuyu di nuyu wa Nimzat di nuyu wa mbaw Ngor wakam lepp luy askanu Lebu rek ma ngi lay nuyu di jël nuyu tamit tek ko su waay rax bu baaxa baaxa baaxa baax pako ma ngi lay nuyu ma ngi lay nuyuwaat une bonne fois moo nga ba Hollande ba Angleterre ma ngi lay nuyu yow yaa ñoom Pape ñu nekk foofu ñëpp maa ngi lay nuyu bu baaxa baax di nuyu doomu yarax yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi extérieur bàyyiwuma si kenn doomu du ma lim kenn mais doomu yarax bépp bu nekk extérieur rek maa ngi lay nuyu wasalaam. Euh, Moussa Ndoye man la Bour Gueweul euh, Senego damay jàllale sama laaj bu njëkk Lac Rose dégg nañ ko mu ne ni ngay def gars yi doog ko def ndax ëppoo ko waaw maa ngi nuyu suma entraîneur yi ku mel ne Ali moom mu jóg ba France pour man di nuyu Mass aw ma fayam nuyu Aliou Sarr Père Ngouda lu kook su ma bàyyi la Père Ngouda su ma bàyyi boppam lañ ma bàyyi ak Père Ngouda benn di wax ni képp ka nga xam ni entraîneur Moussa Ndonga muy Mass Souleymane Diaw Souley Mamadou Sow Aliou Sarr moom mi nekk si bopp bi ak bépp mbër ba nga xam ne yaa ngi biir yaraax mbëri fi gis yëpp benn écurie écurie yàlla yëpp ñoo ñëw tey di wax ñëpp sumay rakk lañ tey maa xewle xëy na ëllëg keneen dina xewle ku xewle rek ñu defal la lii waaw laj li ma koy tontu mooy que yaakaar naa man li ma wane nii doy na leen li ma wane nii rek doy na leen waaw li ma wane nii rek dafa doy ndax yaakaar naa ne def naa li ma waroon def pour man bu doon léegi léegi léegi léegi pare na combat bi ku ne xam ne def na presque ñaari at est-ce que xawul handicapé tuuti Moussa Ndoye ci wàllu entraînement ndax ku ne xam ne ne préparation combat dafa métti ngeen jàppoon ko puusaat ko parce que sa adversaire dafa feebar est-ce que durée bu yàgg boobu amul lu mu joué. non mënul joué si man dara ndax euh, yaakaar naa ni doomu yarax yëpp doomu yarax yëpp ñu ngi doon bëri tey Loso bëri na fi Wus Jàmbaar bëri na fi Gourdin bëri na fi Dalifor tey Siré bëri na fi Boy Diop bëri na fi Nokia bëri na fi ñooñu ñëpp bu fekkee bëri nañ Moussa doom mi doon contact ak ñoom kon tey man lamba munu loolu munu ma handicapé tey munu ma handicapé tey li ma wax mooy lak dafa am lu mu wax.

parce que boo xoolee boo daanee Lac Rose daanaka mbëri nekk si kaw dootuñu la mënati bañ. waaw ko combat bi mooy li ma wax rek dama ànd ak sumay suma staff ñuy ànd ak man di entraîné tey bàyyiwuñu dara tous les plans tey yaakaar naa ni lépp lu war damay wax ni lépp lu war si combat bi def nañ ko wàllu kaar yi wàllu bii yi wàllu tiset yi du ma ko wax tey man damay def open press sama maire sama maire maire ñëw tey képp ka xam mu ngi fi honorable député Fatou Diouf mu ngi Euh, ñu koy wax tey gaa képp nga xam ne tey autorité nga biir Yaraax tey ay awa ñag ñoom ñëpp ñu ngi fi mais man damay génn damay def open press sama maire ñëw kon loolu dama am motivation bu may defal kon Lac Rose mi ngi gën a métti moom bu doon tey tey tey nee na pare naa. mais Fass dañu mën bés Moussa Fass dañuy écrit bu attan bés. te barki demb la ñu jigéen jóge ci diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux te ku ne xam ne Lac Rose dafa gëj a bëre euh, nekkoon ci ay tolof tolof te nee na dana attaqué dana koñe te dana gañe. waaw fas lu mu mën bés mën bés mën bés euh, man yarax laa gëm yarax laa gëm man yarax gëm waaye yarax ñoo ma téye ñoo ma ngemb man képp ku fukki penc yeeg ñaar yëpp ñoo ma kenn man ñooñ ñaa gëm attaque koñe daanu déggal ma si kàttu ñaar day attaque day koñe day daanu gor la jullit la na dafa noonu di wax gor la jullit la lillaay wa rasul dama koy ñaan li mu wax nii na ko matale dafa day attaqué koñe gagné na attaqué na koñe daanu. kon Moussa ci taxaw. waaye mbapatul. dama ñëw pour lépp. combat bi dama ko entraîné entraîné lépp lu war si combat bi entraîné naa ko su fekkee luqi ko mu daanu dama koy luqi mu daanu xool ko mu daanu dama koy xool mu daanu su ma entraîné Aliou Sarr laay déglu ak su may coach. xanaa dugg moo man sama entraîneur dafa dem ba dafa ama jóg dama am entraîneur ba nga xam ne mi ngi asfa mas ñëw di ma jàngal xeex. suma entraîneur jóge France moom yoron France jóge France uniquement pour lan sama combat mu ñu nii ma nekk Ali fas xamna len yalla ñu yalla lafal cat yalla ñu yalla may ndam ci barke Sëriñ babakar Si waaw man limay wax moy euh man Moussa ndoy Diallo mang koy gërëm bu baax a baax baax baax Diallo Escaf mang koy gërëm bu baax diko ñaanal wa soal ma ngi gërëm bu baax baax man dal li ma wax képp kuy supporter Moussa ndoy fan ci club Moussa ndoy yépp damay ñaan li laay war a le treize midi ku mu yarax ñàkk nga ko Dalifort Cité Maris ñëpp ñëw leen bàyyiwuma kenn damay woo ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn di wax nag fukki biñ jëm ñaari nañ ñëw bàyyi ma ñoom ñoom Bakary yi borom Temax yi borom routière yi borom moto yi lañ di gërëm nag waaw non mobilisation est-ce que doo

di woo yarax ñëpp ñëpp ñëpp ma kenn di woo waa Tivaouane waa Touba di woo nag suma waa kër muy waa Canaba Canaba Seck bàyyiwuma kenn maa ngi woo ñëpp na ñëpp ñëw génération xare ñi nga xam ne ñëw nañ fi yàlla na yàlla fay leen te xam naa ni sonn ngeen si man man it sonn naa si yéen képp ku nekk génération xarañ yàlla na yàlla defal la jàmm non man génération xarañ laa wax soo xarañ ñoo fi ñëw comme génération xarañ ñoo fi ñëw man ñëpp sumay waay lañ waaw di wax ni waa Yarax bàyyiwuma kenn ñëpp nañ ñëw lépp la nga xam ne Yarax lañ nekk Baye Fall yi nañ jël xiin ñëpp ñu dem ñu ñëw na metti di wax ne nag encore une fois Babacar Mbengue ma leen lancé message bis bi sa bis la le treize sa treize la le treize c'est le treize la Matar Diaw le treize c'est le la affaire yi cent pour cent Yarax la di gërëm bu baax ki nga xam ne kooku rek mooy yooyoo gërëm muy suma baay Nguuda Sarr Aliou Sarr Souleymane Diaw. asalaamaaleykum papa kii Hann la ñu ñoo fi teewoon tey si open press bi pour bëggoon a laajte tey parce que seetlu nañ tey Moussa Ndoye toog na durée bu yàgg di préparer combat bi ndax loolu tey du am enjeu tey si combat mi nii moog Lac Rose. parce que mu ko tëgg n'est-ce pas mu avorté léegi ñu xool tey ndax durée boobu mu toog entraîné wul tey wala soit mi ngi doon làqu di entraînement ndax loolu tey du am enjeu tey si combat bi mu waaj préparé. waaw ñoo yàlla di nuyu yëpp di leen gërëm yéen tamit

waaw jërëjëf léegi tey da nga gisee tey mobilisation bi waa Yaraax taxawal tey ngir ngemb seen mbër mu jëm kanam da nga gisee mobilisation boobu noonu tey waaw mais Moussa Ndoye moo war a fay waa Yaraax rek parce que mënu leen fay ça si lii du c'est la première fois Yaraax mobilisé ni Yaraax dañuy sot suñ demee ba soxla leen rek ñoom ñëpp dañuy booloo parce que gagné la xam depuis yaraax yaraax nekk ba pare même xale yu ndaw yi nga gis nii tey boo leen yóbbu woon fenn ñu dem war a jongante seen bakkan lañ ciy teg donc moom li mu war a def mooy li mu leen mën a fayee mooy ndam rek te ndam nag yàlla moo ko yor mais yàlla na ko yàlla may ndam mais def na lépp pour da am ndam def na lépp li mu waroon entraîné entraîné na ko lépp fi ñu toll ni day relaxé ba jour combat bi mais vraiment def na lépp ba pare